aja jërë ngeen jëf mbokki internet yu Feeling Dakar puis Pro Média ak Médina TV ba tey fii ci Caaroy Géej gannaaw jëye ji nga xamante ni rek nemmeeku nañ ko fi démb ci ngoon ci ñaari xale yoo xam ni jote woon nañu waaye kenn ki daldi faat moroom ma eh, ca coow la ca judd nag moom it ma nga xam ne nag moo ko faat moom tamit eh, xale yi koñ bi daal dinañ am nañu jëflante ak moom ba moom tamit mu jaare fa ñàkk ba kenam ay ci ki ñu toogal moom mooy way juru maam Cheikh ñu di ko masawu di koy jaale bu baax a baax di ko ñaanal seen borom mu yërëm ko te jéggal ko xaare ko ci àjjana yi gën a kawe bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaay booy gannaaw ba ñu la masawoo ñu ngi lay nuyu eh, yow way juru maam Cheikh ñu lay nuyu yaay booy bu baax a baax Euh, ñu jéegee nouvelle bi daw ñëw ngay waajuru maam Cheikh démb mbir yi bi muy xew fan la la fekk. ma gëm ma nelaw ma tes yàgg mami maa ne la ma génn si biti ma toog jàkkaarloog tefes gi nii toog si sama fii bi ma dégg ñu naan ñu ngi koy jam mu ngi koy jam ma jóg yuuxu xama woon ni moom la sax maa xam beneen doomu jàmbur laa ko tegoon may yuuxu di yuuxu naan jug leen wàllu ko mu yuuxu mu daay daw mu ma bàyyi si yàlla ma daw fekk mu rendi ko ndax moom Baye Cheikh ci suba gi da a gisante yéen ñaar wala daf la tàgg woon ni day génn ñëw na fi ñëw na fi ban añee pare yaay may ma benn zi mun ko jëlal ndaay dem ci la loolu amee. yow da nga rek dégg coow. yuuxu yi ma jóg ma yuuxu dafa ni keneen laa ko tegoon sax bu ma ko woon sax mhm. te bàyyi seet du xeex moo taxoon ma doon ma tekk keneen di yuuxu dafa ni keneen lan rey ndeko moom lan rey mu mhm. ñu fekk mu rendi ko ba tëral ko. ci anam boo xamante ni maara day taali anam bu métti moom bàcc ni soutien de daan taxaw la waaw mu daan taxaw daan dem campagne bi papam géej gi amul dara papam day dem géej moom mooy dem uti ñëw indi jox ma mm-hmm. moom mooy indi dina bi ñëw jar ni ma yaay am ma jël moo daan dimbali daal moo daan dimbali ndax uh, wax nañ la ñoom ñaar lu ñu jotee déedéet yuuxu yi laa dégg daw génn ñooñ rey na rendi na ka laa daw génn xama luñ jote jotee mu gis nañu témoignage yi tamit yi nga xam am nañ ko ci koñ bi mooy que xale bu bariwul woon dugg ak génn la nit ku yaru woon la ko jàppoon njàmburam jàppoon njàmburam la yeexul xuloowul duggul si kenn foo ko fekk mu nga toog jàppoon njàmburam jël portable moom di seetaan duggul si kenn masuma kaa kay àtte man liggéey wàcc ñëw sangu dem suñu kër gu mag fa lay yenn fa lay añee sax ñu ñëwaat ci guddi gi laaj reer fekk daa kaaya mu laaj reer mu ñëw ma jox ko mu demaat mu dem tëdd. mosuñu la woo wax na ni dafa jot ak diw. déedéet mostaan kay guleet guleet. parce que naa duñ la téye lu bari ndax euh, fi émotion bi toll dafay métti lool pour ngay yëkkati sax ay kàddu di wax euh, yan kàddu rek ngay dénkaat dëkkandoo yi nga xamante ni ñoom ngeen nekkal fii.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

maam booy nuyu ah, am na lu ñu metti lool xale bu xam ne ne da daan daw dimbale yaayam ñu ne ko fett rendi te yaayam amul dara amul dara quatre de matin lay xëy central bale wuti lu mu lekk ba pare soog a ñëw togg benn néeg bale moom lay xale di tëncaloo muy daw di wuti dimbale yaayam ñu ne ko fett rendi am na nun lu ñu metti lool metti na lool metti na de waaw. man man man man man fekkuma fi man Cambérène laa dëkk. man dama jóge jàkka ja rek ñu wax ma déegi waaw ñu wax ma déegi waaw waaye nag metti na moom xale buy daw di nooro ji di dimbale yaayam ñu ne ko fàtte rendi metti na yaayam amul dara pàppam amul dara waaw benn néeg bale la ñuy dankuloo ko man na Cambérène laa dëkk man Aïda Niang laa tudd bis nga xale bi nii nii ñu ko def man def nañu ko sama jëkkër ambassade bu Espagne waaw tey am na fanweeri at ci ren waaw ma xëy rek 9h 8h ñu woo ma téléphone ñun ma ko Aïda Niang ma ne leen waaw. ñu ne ma Modou Niang dafa blessé dafa baleese ma ne ko dafa blessé ndax góor nekkul ci kër gi ma daal di woo rakkam bu góor ñu fekk ko ci kaw gason bu mu tëdd ak dereetam waaw ma am mantim am naa lu ma metti lool damay dem nii rek waaye nekkuma daal waaw metti na ma torop am naa moom juróomi jigéen ak juróomi góor macha waaw waaye waaw saa ma xëyee nag damay jël sama paan bii dem dawale yàlla comme nii ay dem gay mii di def waaw moom bi ni nga ko waxee léegi nga ne waajuram loxoom jotul gannaawam amul dara doomam doonoon jooju moo doon loxoom waaw amul dara gis nga néeg bale moom la ñuy dankalu ko amul dara jëkkëram sa sët bi minante woon nga ak moom. moom maamam bu jur yaayam gi moom mooy suñu taawu yaayam moo ma yar moom kii yaayam moo ma man caaray laa waaw caaray laa am naa lu ma metti lool nag waaw te xale la ndaw la amul dara loxoom jotul ginnaawam dëgg yàlla ñu ñoŋalaat sécurité bi ci ndax li ñuy nemmeeku li ci jamono ji bari na lool. sécurité bi ñu gën ko ñoŋalaat. ah, ah waaw bu amee ku ko jàppale kañ mu jël ko ko am bu amee ku ko jàppale ah dina baax de dëgg yàlla amul dara waaw xale la jëkkëram tim xale la moom rek lañu yaakaaroon. xale bi da daan dawi di mbaal bu amee lu mu am jox yaayam ñu lekk waaw loolu rek kay sama waaw kay amiin amiin